سعد من في دلا زرزره إن جندا من خياف قد سرى salaamaaleykum mbokki internet yi nga xam te ne yéen a safoo Hann TV amaan nañu mbéte ak contentement bu rëy rek daal di ñëw fii ci biir euh, jumaa bi gis nga euh, li nga xam te ne moo nekk suñu ginnaaw muy euh, bërëbu Serigne Babacar Sy Malick damay def lu rek daal di bàyyi ki nga xam ne moo di suñu pape Jamil Ndiaye bu ko defee mu daal di présenté ndax Sénégal kenn dootu ko présenté ci rawatina rek ci li nga xam te ne moom la ñu nekk muy wàllum Tidiane ya dama koy bàyyi mu nuyoo salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar wa di bekk bu baaxa baax si ngeen dalal ñu. bëggoon nañu xam bu baax rek euh, lan rek nga ñu mëna wax ci Serigne Babacar Sy Malick ndax fi ñu taxaw ni bërebam la. wa Serigne Babacar Sy lima mëna wax a mom si euh euh ku yalla mayon la fa tabarakallah nekkon borom xam-xam nekkon ku mandu doyna ci tektal rek Serigne Babacar ben jigen daw ko tek beut biko ko ñi laaje ne ko suñu ñeneen mbokk daayira yi ñu ñaawal ne mooy nañu yeen du ngeen gis seen serigne serigne babakar ni leen ah kon de dama ko ñemewul rek te ñom ñu ñeme ko waye ñun ñëpp lu ko yalla téré doyna ci tektal ci mandu mandu tek serigne babakar si radiyallahu taala anhu euh, di gor go xamne ne kenn mënu ko wax ba mu jeex muy moy liko ko kat bi wax rek euh, yaa yanu yan bi te won ko sakko aw te jambato ndax ni mik billahi ya bëri ngor te kiko ko wax di serigne Abdul Aziz Dabakh malik di rakkam loolu rek doyna na fa tabarakallah xamna lepp du fi xaj ndax serigne babakar geet lagu amul tefes bahrullah sahilallah saaxila la waaye ñu lay baye rek nga ñi may euh, tuuti rek serigne babakar sima Malick ñu bëggoon xam rek euh, li nga xam ci ne mom la khalif bi wax ren muy nañ koy wowe euh, tour bi tour bi exactement serigne babakar si wa khalif bi lim wax taalibe jëfe rek khalif bi lim wax moy nañ koy wowe parce que lolé turam mbay du tour mbay du tour Babacar si la tuddu ñu tuddé ko Serigne Babacar si mi teud fi motax kon khalifa bi lol mu wax naka ñepp baye xel waaw nañ koy wowe Serigne Babacar si Mansour waaw jërëjëf. kon donc ñu bàyyi rek nga daal yëkëti so dan ti ñu ñaani pass Malik gaterna khalifa malik ya nu doy ya yor gaal ga teer na xalifa ca kaw so daan tiiju ñaani paas gaal ga teer yaa nu doy yaa gaal gee so gaal ga teer na xalifa gaalu xalifa doo ca tiite neer doo sa loxo ca kaw doo sa tiite neer doo jaaxle pasu gaal ga moo di jaan la sodal gaal ga teer xalifa Malik yaa nu doy loxo ca kaw dem ca teel ga ñaan ca teel ñëw ca gaalu xalifa dem ca teel ga ñaan ca teel ñëw ca wa am tii fi ca teel ga ñaan ca teel ñëw ca si sa ba dem ca teel ga ñaan ca teel ñëw ca teeloo gaal ga teew fa gaaña teew mbër ma feeñ fa sodo gaal ga teer xalifa Malick yaa nu doy yaa yor ga loxo ca kaw ku fi jaaxle booya boo nga ti waa loxo ca kaw ku fi jaaxle booya boo loxo ca kaw ku fi jaaxle booya booya boo ti waawa ñaan sa aajo dellu see say maqaama gaal ga teer na loxo ca kaw Seydi Jamil ku la way yàlla loxo ca kaw Xalifa Maalik ku la way yàlla loxo ca kaw Suura Mbay Si ku la way yàlla fa لقتك وسيبت جان لا وي الله الله أمين سرني عبدك لا وي الله لقتك وبابا مالك لا وي الله لقتك وخليفة بيدك كا وي الله لقتك وسن بابك كا وي الله لقتك وصور جميل كلا وي الله ku weddi laaj rasulullaay ak sa baam yaa sodante wallaay xalifa malik yaanu na yaa yor gaal ge si sa jaane ba mu mel ni neex na ba noppi de macha allah yàlla yàlla wéeral baat bi yal na yàlla suñu borom bi def euh, lépp rek loo xamante ne rek yéen a ngi koy sàkku ah fi nga xamante ne rek moo di euh, ci euh, bërëbu Serigne Babacar si Malick kon dañuy def lu dul rek daal di ànd ak sama caméraman bu ñaaw bi daal di waat tuuti rek ñu daal di xool pèlerin yi naka la ñu dundee seen gàmmu